une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer Je me nomme Madame Touré plus connue sur le nom de Fatou Faye eh, maa leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant man la Madame Touré ñu gën maa xam ci turu Fatou Faye et eh, maa leen di présenter benn jeune en entre classes, une jeune anerbe entre classes. Alors, la première personne, c'est Oumifal. Tu écoutes ma question. Quelles sont les personnes de la conjugation Quelles sont les personnes de la conjugation Sorna Oumifal. Les personnes de la conjugation sont ce, tuyau, elle, il, elle, nous, vous, il avec S. L, F ak la deuxième question, c'est Sokhna Fati euh, le nom pharmacie a composé de combien de syllabes? Combien de voyelles? Combien de consonnes? Le mot pharmacie a combien de lettres? Le mot pharmacie a combien de lettres? Le mot pharmacie a combien de lettres? Neuf. C'est Très bien. Combien de syllabes? Pharmacie. C'est la question. Juma. Nombre de syllabes, pharmacie. Trois syllabes. Tu d'accord? C'est bon? consonnes 6 d'accord Oui. Maintenant, c'est la première personne, Oumifal. Oumi. Troisième question. Fama Sénagé. Fama Sénagé. liquide citer deux liquides de javel tu es d'accord très bien vinaigre pétrole très bien deux liquides gasoil parfum oui The Lord. Peteron. Ano? La première personne, c'est Oumifal. Tu donnes le micro à Oumifal. C'est toi. Voici, non, citez deux solides. Tu nous cites deux solides. Cite-nous deux solides. Tabula. this big règle livre la sixième question tu regardes sur ton feuille regardez sur vos feuilles ngi nii jarul bind voici une mais une rang rang sur le point de départ et une sur le point d'arrivée voici une organized. Next, c'est

61 moins 27 61 moins 27 vingt et un moins gëstu le résultat c'est 34 34 34 3. 12 divisé par 3. Douze par 3 est combien? Le résultat c'est problème 12 pommes, 19 oranges. Combien de fruits as-tu en tout 12 pommes, Le résultat, c'est combien 31, c'est 31, c'est 31. 31. Le résultat, c'est 31. 31. Le résultat, c'est 31. C'est bon? Alors maintenant, tu nous donnes le résultat. Sokhna Fati Oumy Fall elle est là tu as 50 points Sokhna Fati lève-toi tu as 85 points assis Diouma points assis-toi Ndeye Sow tu as 80 points donc la gagnante c'est Sokhna Fati avec 85 points félicitations Sokhna Fati

Moi aussi de même. Passez une bonne soirée. À toi aussi, passe une agréable soirée. Merci. Bonsoir, je m'appelle Astoufal, suis le chef de groupe. les questions. Les chefs de groupe. Question numéro 1. Supposons que ici c'est la groupe numéro A, ici c'est groupe numéro B. groupe numéro A, donnez deux indicateurs logiques. Donnez deux indicateurs logiques. Les deux indicateurs de logique sont d'abord puis. Très bien. Groupe B, donnez deux indicateurs qui indiquent le présent. Deux indicateurs qui indiquent le présent. Donnez deux indicateurs qui présent. Aujourd'hui, Groupe A. Quelles sont les parties d'une plante? sont les feuilles, la racine et Groupe B. le jour. On voit le soleil. Le jour, on voit le, soleil. Ah. Est-ce que c'est bon de boire des comprimés périmés? Oui ou non? Est-ce que c'est bon de boire des comprimés périmés? Non, c'est pas bon de boire des comprimés périmés. Et pourquoi? pourquoi. ndax boo ko naanee mën nga cee eh Qui est le fondateur du mouridisme? Le fondateur du mouridisme, Cheikh est le fondateur du moo ko yor. Numéro 7. Groupe A. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké? Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est le fils de Sokhna Diarra Bousso et de Mame Mor Anta Buso ak Maam Mor Anta Sali Mbàkke 279 plus 279 est huit cent vingt-six huit cent vingt-six moins cent treize huit cent vingt-six moins cent treize

soixante quinze divisé par quatre divisé barkaat huit cent

dégg kon kan moo gagné 70 ak 90 ban moo ëpp ah lan moo ëpp 90 kon la classe de C2 a rapporté la victoire félicitations. به لقد سعى في هذا الزمن تفاخر وتباهي بين الناس في ألهابهم وحبائلهم حتى على بعض أن لا يتزوج بقبيلة فلان ولا يزوجهم مثلا الولفيون للولفيات والفلانيون للفلانيات حتى في دمنا الولفيان تجد أسرة فلان لا يتزوجنا بأسرة فلان وهذا ليس له أصل في دين الإسلام لا يهم في شخصية الإنسان أصل المهم أن يكون إنسان متخلها بأخلاق إسلامي بحيث إذا حال أفاد وإذا فعل أصاب يتخلى بأخلاق محمودة ويتخلى بصفات مسمومة يسلم جميعهم بلسانه ويديه وينتفعون بإنجازاته كلنا من آدم وآدم من تراب لو كان لك آباء وأجداد من سرف من سرافك زمانهم خلقا وخلقة لا يزيدك سرفهم شيئا إن لم تكن مثلهم مثله أجداد من سرف قلوبا وحبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يجب على المسلم أن يحتقر أخاه لا في شخصيته ولا في حبيلته ولا في أسرته ولا في لهجته حتى لهبه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حشى أن يكون خير منهم ومنهن أختم حسابي واستخفكم من قلة حلمي وركاكة كلامي وهدم فشاحة وأده الله لكم خمرا طويلا وسقة كاملة كل عام وأنتم بارك الله بخير وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك بسم الله malaaka yi mamruwaatu dañ leen a bind min nuurin sigle laa yakuluuna te duñu lekk wala yasrabuuna te duñu naan wala yasna laahu te duñu may seen borom maa amarahum te lam leen digal wa yafaluuna maa yumaruuna dinañu def lum leen digal وجاء Soxna Rokhaya Faty Kébé صدق الله العظيم مثل في البلاد صدق الله ناصم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه صلى الله عليه وسلم تفوحنا بني الإسلام تبعنا الإسلام seede ne na amul benn buur bu wa anna muhammadan rasulullahi muhammad ndawal yàlla wa iqaami salaat taxawal julli wa itaay sakaat joxe asaka wa sawmu ramadaano woor weeru koor wa hajjul bayti ju Makka xeesal meesal soppi dahin sol sipp sol jeen bay aaral xalaalaatu bàmmeel ba sax yaa jiir yaa landamaay ba ab jullit war nay may toloban ab jullit war nay may toloban bismillaahi rahmaan الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب إنسان أن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 كلما مدى من الدر ما قوت سلما إلا يعاد الله ما لم يكون ولا يكون أبدا للملكن Seex Bamba dañ na lu kenn daj ngir bëgg Yàlla ak yoneenam kéemam du am xëy nañ ko génne ab dëkkam tàqale ko njabootam ak ay taalibeem ngir li gëm ñu jàpp yóbbu ko biro Ndar mu weddi leen saxal ni jenn yàlla rekk a am ñu boole ko gaynde ga taj gaynde ga boof ba ñu tijjee di seet ba xam weex na ci ñoom ñu yóbbu ko Dakar taj ko ci rukuuxaat samp ca ay ràbbu te xet gu bon la am ñu boole ko aw nag gu loota soxor mu ñëw ba jub ko foofu ni fër naaw dem dugal ko ci boto ba waxtu julli jot mu lal deram ba ca ndox ma julli rey nag ñu yóbbu ko gaboo di réew mu bon lool te sori nit ña xamul jénn ji ne woon te ñàkk gëm gas nañu kan dugal ko ci suul ba mar maral di xàqataay ba ñu dellu gis ba jëmam dugal ko ci puur bu ñu tàngal ba mu saas def ko ca biir ba ñu tijjee ñépp di yéem saddaxalaawul xasim والصف والوتر والليل سعصعص والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناصرات نصرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا غسرا أو نصرا إنما تحدون لواحد chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer